baal ma mën a bala maa jàll daanaka sax ci bi ma jógee ci Touba ak sëñ bi ci loolu laa waroon a dem muy affaire u xale yi mhm. jeunesse bi mhm. surtout nag ñi nga xam dañuy dem ci géej gi di dem ci gaal yi mhm. waaw xale yi daal maa ngi leen di tàllal loxo wax leen ni ñi demagul ñu bañ a dugg ci yooyu te doyloo sëriñ Touba wóolu ko te xam ne li ci kanam incha allah réew mi dina soppi ko ba duytu ñu def yooyu ci loolu kañ la soppeeku boobu kañ lay am. Ah, waaw waaw xam nga yonent yàlla Ibrahima ba muy ñaan boromam la mu ko doon ñaan ca Màkka <laughs> ñaanu ko rek ca suba ba mu am mbaa ca gannaaw su bëgg loo gis rek dafa laaj patience inna allaha ma'a sabirin yàlla ñi muñ la àndal il faut être patient. mais mais loolu xale yi nañu muñ tuuti bu ñu muñee tuuti parce que réew mi dina changer moom. kañ. waaw dina bientôt rek yàgg tuuti. mais 2024. <laughs> changement bi non non non gis nga. fi mu toll nii yii